d'aucune ambiguïté juridique. Maintenant, par rapport à cette interrogation, je crois qu'au moment où je vous parle, Bassirou Diomaye est en train de subir une détention provisoire. Il n'est pas encore condamné. Mmh. Sénégalais aussi, dama me bëgg leeral benn affaire mooy pri nekk prison taxul ñu condamné la en droit mën nga nekk prison te condamné gul la. parce que droit dafa am procédure. dafa nekkoon en prison il a été poursuivi pour une infraction de nature correctionnelle mooy dafa defoon benn post Facebook. ñu jàpp ko ci loolu diffusion pour diffusion de fausse fausse nouvelle bi ñu demee ba ci biir on avait constaté que le procureur mu def benn réquisitoire supplétif mooy procureur bu demee ba nga xamante ne tey jii nii gis na ne kat kii ñu topp nii am na ay faits yu bees yu ma découvrir ci moom am na possibilité mu saisir le juge d'instruction ci li ñu tuddi un réquisitoire supplétif nekk kat ah kii yaakaaroon na ne au départ lii lañ ko doon toppee mais moi le procureur de la République qui le maître des décou de de découvrir d'autres éléments yoo xam ne bëgg naa ñu joindre ko ci dossier bi léegi procureur bi bi mu defee loolu dafa saisir le juge d'instruction d'un réquisitoire supplétif pour que la dossier de Bassirou Diomaye Faye soit adossé au dossier de Ousmane Sonko ak dossier Ousmane Sonko ak dossier léegi mu nekk benn dossier léegi au départ Bassirou Diomaye Faye dañ ko doon poursuivre pour une infraction de nature correctionnelle mais présentement ne il est poursuivi pour une infraction de nature criminelle parce que Ousmane Sonko chef d'accusation atteinte à la sûreté de l'État euh, donc euh, euh des des des des mouvements insurrectionnels entre autres mooy infraction yi nga xam ne ñun juristes yi dañ koy tuddee parfois des infractions euh, vrai véritablement élastiques euh, donc présentement ni il n'a pas été jugé parce que dafa nekk di subir ce qu'on appelle une détention provisoire détention provisoire mooy dañ lay téye téyemndiku en attendant que juge d'instruction bi instruire parce que en droit on dit que le juge d'instruction il instruit à charge bu fekkente ne par exemple jàpp nañ ne yow faits yi lay toppee c'est des faits complexes qui nécessitent une enquête approfondie le juge d'instruction il a la possibilité d'user des prérogatives que lui confère le code de procédure pénale pour que tey jii nii kat mu mu def des demande à ce que ñu def ay enquêtes léegi nag à parti du moment ñu nekk ci phase boobu noonu Bassirou Diomaye Faye kenn atteegu ko non seulement kenn atteegu ko mais amagul sax su qu'on appelle audition au fond il n'a pas encore été auditionné dans le parce que boo nekkee phase d'instruction pour que sa avocat mën a introduire une demande de liberté provisoire il faut obligatoirement mu am audition au fond audition au fond mooy juge d'instruction bi da woo léegi nag ñu interroger la par rapport ak fait yi nga xam ne tey ji moom la lay toppe moo tax ñu mettre la en détention Euh, provisoire donc à partir du moment où audition au fond amagul avocat am amagul possibilité introduire demande de liberté provisoire parce que li ma wax la fois passée sur un autre plateau dama ne à partir du moment où Bassirou Diomaye Faye sa candidature a été validée par le conseil constitutionnel donc euh, l'élégance républicaine là nag c'est pas le droit mais c'est l'élégance républicaine voudrait que le président de la république au moins mën ko accorder une mesure d'élargissement pouvant lui permettre d'aller vers les Sénégalais yi nga xam ne tey ji woolu nañ ko retrouver nañ ci programme am moo mën a battre son campagne moo euh, moo mën a battre sa campagne électorale correctement et convenablement maintenant à partir du moment où maintenant auditionné gun ko dans le fond ces avocats n'auront pas la possibilité d'introduire une demande de liberté provisoire maintenant li nga xam ne tey ji moom moo am mooy Euh, même de la prison en tout cas boo ko Sénégalais yi wóoloo ba voter que il peut être le président de la République du Sénégal maintenant nag li nga xam ne ni moom la ñuy wax au-delà du droit mooy le président de la République ferait mieux en tout cas de trouver un moyen oo xam ne boo xam ne dinañ ko mën a permettre ou bien même la justice dans son entièreté trouver benn solution à son encontre pour qu'il puisse sorti de la prison dem battre campagne la seule solution bi nga xam ne moom mooy am bu fekkente ne il n'a pas encore été auditionné dans le fond parce que j'ai dit tout à l'heure que tant qu'il n'a pas été auditionné dans le fond ay avocat mënuñu demander liberté provisoire te tey jii nii avocat mi demandé woon liberté provisoire à partir du moment où le procureur de la République def appel devant la d'accusation Bassirou Diomaye Faye il reste te le procureur de la en droit dafa am benn lien hiérarchique boo xam ne da koy rattaché avec le ministère de la justice te le ministère de la justice ñëpp xam na ne son patron c'est le président de la république donc de ce point de vue là même déjà pour la liberté provisoire ça pose problème mais il y a une autorité yi aussi bu leen neexee ñu ne comme que conseil constitutionnel valide na sa candidature ñu accordé que ce qu'on appelle un contrôle judiciaire mooy une libération ñu def ko contrôle judiciaire récupérer passeport am d'autant plus que tey jii nii bu ne bu nit ki contrôle judiciaire li nga xam ne tey jii moom mooy moom la moom la autorité judiciaire yi di xool mooy est-ce que waa ji mën na daw déjà Bassirou Diomaye Faye mënul daw pour deux raisons il est déjà candidat à l'élection présidentielle il est un haut fonctionnaire de la République boo xamante ne nii il n'a pas intérêt à sortir ce pays là beneen affaire bi mooy à chaque fois que la justice a a une bonne les garanties d'une bonne représentation en justice et en plus il est véritablement candidat à l'élection présidentielle. Donc, ne serait-ce que sur la base des éléments factuels que je viens de décliner, les autorités judiciaires, donc, mënoon xool au moins ne kii candidat la am nañu ko wóolu am na ñu koy yaakaar am na ñoo xam ne jeté nañ seen dévolu ci moom yaakaar ne kat Sénégal bi nga xam ne tey jii nii moom lañ bëgg gis nañ identifié nañ ci politique am ñu may ko contrôle judiciaire mais lool noonu lépp c'est des alternatives c'est juste dans le cadre d'une d'une d'une d'une de la République parce que j'ai commencé par rappeler que li may wax nii c'est pas du droit mais c'est par élégance républicaine parce que mm. parfois Paco droit xam nga droit dafa am mais humanisme dafa am élégance dafa am